fii ci waxu nguna nee nañu fii mooy waalo mooy mooy waalo Saloum du waalo du fleuve de mooy waalo Saloum la département Nioro du Rip région de Kaolack ñu ñëw di fi lancer les opérations de distribution yi nga xam ni dund gi président jagleel askan bi mu nekk lu am solo luy dem ci askan bi wax nañ ko ñaari saaku ceeb bi cinquante kilo fukki litre dëwlin fukki kilogramme suukar fukki kilogramme maanaam pâte alimentaire moo xam ni macaroni la wala vermicelle la ak saabu paquet saabu boo xam ni fukki saabu ak juróom-ñett donj lay def buñ ko doon xayma ci ay koppar fukki junni la ak ñett ak ñaar téeméer te gëm naa ne boo jëlee ci monde bi wax naa ko léegi lii lu mu toll bi nga xaymaa booleekaat Sénégal nu mu toll ci population ak comme comme nu mu toll gëm naa ci monde bi Sénégal moo ciy jiitu ci yërmande bi nga xam ne président am na ko ci njabootam am na ko ci askan bi nga xam ne moo ko dénk réew mi liggéey bi na continuer tey jii la commune de wax nga ne mën naa commencer distribuer région de Kaolack fii léegi ñaari fan ñetti fan lépp dana mat sëkk gouverneur jiite ko ñu commencer joxe dund gi parce que taw bi mi ngi ñëw hivernage mi ngi dugg te bëgg nañu fii au moins quelques jours dix jours tout au plus distribution bi commencé ba jeex au niveau de tout le Sénégal. Sénégal dafa am RNU boo xam ni ci yi fiable la bokk jóge nañ ci cinq cent quatre ci un un registre bu nga xam un million de ménages moo ci nekk parce que yokk nañ ci les quatre cent onze mille neuf cent mu nekk day dem un million de ménages bu set wecc te lu ma leer mooy amati plus de 5% erreur kok leer na et kok c'est une performance jamais égalée à travers le monde jamais égalée kok ku ko liguey mooy sa l'administration territoriale moo ko liggéey ànd les différents acteurs ñu len ci gërëm bu baax di len sant taxay parce que li moy liguey sa l'administration ñoy lay liguey té président def len jox cër jox len gëdd ñu delloo len seen gëdd ba mu mat sëkk moo tax liggéey bi ñu liggéey mu nekk liggéey bu baax boo xam ne dafa feeñ ñu leen ciy gërëm bu baax di leen